cité kër góor gi boori kër Ousmane Sonko ci diggu interview lañu ñu dàq. à l'opinion ci lañu ñu puus ba ca rond ba ngir mën a yeggali. waaw waaw kaay yeggali kaay ñu yeggali après kaay ñu yeggali. mu nekk lu metti waa Pastef bii. ñëwoon ngir xool leader am ñu mu toogee. ñun ñëpp gis nañ ko tey ñun fi ñu taxaw ak euh, waa Leral TV déjà sori nañu kër euh, le président Ousmane Sonko ñu bëggoon ñun en tant que patriote joxe suñu opinion ci lu xew parce que dañoo ñëw uniquement pour euh, xool suñu leader ci lu mu ne. mi ngi artu nguur gi wax ni lépp lu daan seen leader mooma. li xew ñun ñëpp gis nañ ko tey ñun fi ñu taxaw ak waa Leral TV déjà nañu kër le président Ousmane Sonko. ñu bëggoon ñun en tant que patriote joxe suñu opinion ci lu xew parce que dañoo ñëw uniquement pour euh, xool suñu leader ci lu mu ne ndax suñu leader mu ngi ci jàmm ndax mu ngi ci salaam parce que dem bi ñu yégee ne que élément euh, euh, GIGN ñoo ñoo ko jël si ci yoon bi bi muy ñëw te bi muy jógee Ziguinchor mu ngi jógee Ziguinchor ci jàmm salaam opinion nationale ak internationale ñëpp gis nañu ne le président Ousmane Sonko mu ngi doon saafanteeg dëkk bu mu romb mu ngi wàcc di saafanteeg ñoom donc tey lépp lu mënti dal suñu leader le président Ousmane Sonko nañu xam ne que le régime du président Macky Sall moo ko teg nañu xam ne ko réellement tey ñu ngi doon def suñu point de presse euh, fi ñu doon defe suñu point de presse fa lañ gisee la police est venue nous nous nous nous nous écarter de là-bas maanaam mu fa de de et de force tey le le président Macky Sall bëgg def moom moom mooy que daf ñoo bëgg ni te démb li may wax lu am solo la mooy que démb patriotes yi xeexuñu defuñu dara et bi ñu yéegee ne le président Ousmane Sonko ne que jàpp nañ ko. parce que maturité lañ doxal ñëpp dañu ànd ak seen sang-froid ñëpp calmé ñëpp taxaw ñëpp di jéem a jéem a xool nan la ñuy def ba xam le président Ousmane Sonko fan la ñu koy yóbbu mais pourtant patriote yi dem mënoon nañ déclenché xeex wala ñu déclenché benn affaire est-ce que yaa ngi comprendre mais déclenché wu ñu dara dañu ànd ak suñu sang-froid toog di déglu ci lañ déglu le ministre de l'intérieur mu wane ne ne moom ñoom ci lu ñu nekk di def ne nekk ci yoon lu tax mu daw ragal ñëw coupé émission bu nekkoon euh, euh, RTS dugg daw wax nit ñi ne le président Ousmane ko jàppuñu ko mais maanaam la GIGN daf ko jël uniquement pour yóbbu ko këram. mais la GIGN réellement bu ko bëggoon yóbbu ci këram comme moom ni mu ko waxee c'est parce que patriote yi ñoo jóg c'est parce que ñoom li ñu bëgg moo antugul loolu la. ci bésub tey jii jafe na taskatu xibaar yi def seenub liggéey ni mu waree ci boori kër Ousmane Sonko ci cité góor-góor gi daanaka foo taxaw taq der yi dàq la ci fàttali démb la takk der ya jàpp Ousmane Sonko indi ko fii ci këram cité góor gi gannaaw ba mu tàmbalee ab caravane bu mu dippee caravane de la liberté ci àjjuma ji ca Ziguinchor ba mu yeggee ba Kolda ñu nemmeeku ci ab waay ju ñàkk bakkanam ca le ministère bi yor kaaraange réew mi génne ab bataaxal di xamle ni caravane dafa laaj yëglu balaa di ko tàmbali